ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokki internet yi di rafetlu seen ànd ak ñun Sunugal 24 ñoo ngi fii ci Tëngéej Rufisque donc ñu ngi ci kër Thiam caam 12 Gaynde donc ñu toog ak euh, doomam tey nag dañ leen a seet si ginnaaw euh, sacre bi nga xamante ni Lions yi am nañ ko fële ci euh, Cameroun donc El Hadji Dame Thiam Euh, doomam la moom la ñu fekk si tey fas yéene waxtaan ak moom euh, ci caam euh, douzième gaynde waaye waxtaan ak moom ci trophée bi nga xamante ni gaynde yi tamit indi nañ ko Thiam mu nekkoon loo xam ne si ni lu mu bëggoon dëcc ak dundam yàlla def li gën fekkoo ko ci ginnaaw la ko Lions yi amee waaye tamit dinañ waxtaan ci actualité bi li ci mel ne prime yi nga xamante ni Lions yi jot nañ ko décoration yeeg mel noonu ñëpp ñuy décoré dinañ ci daal di ñëw ci waxtaan bi ci biir ak moom dañu koy bàyyi rek mu nuyoo ginnaaw bi ñu ko nuyoo ba pare ñi soog a jàll ci waxtaan bi El Hadj ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa leen di fay bu baax a baax di rafetlu seen teewaay fii quoi waaw. d' accord euh, El Hadj euh, euh, Euh, douzième gaynde ku nekk xam na ko ci bëgg gi mu bëgg Sénégal euh, fu nekk taxawal na fa Sénégal fu lion yi dem rek dañ ko daan da nga daan gis Thiam ci seen ginnaaw mu leen di mu leen di puus euh, pour ñu ñu ñu indi ndam li ndam li nag ñëw na comme ni ma ko waxee léegi ñëw na ci ginnaawam mu génn àdduna ñu koy ñaan yàlla mu xaare ko àjjanam bi coupe bi ñëwee bi ñu dugalee bii bi ñu xam ne coupe bi ñëw na ban yëg-yëg nga am ak naka ngeen ko dunde fii ci kër gi. waaw waaw bon avant tout ñu ngi nuyu sénégalais yëpp parce que ak waa diaspora bi ñëpp parce que amuñu seen fay quoi parce que boo xoolee vidéo message bi mu lancé woon daanaka ñëpp la dal donc ñu ngi leen ci gërëm di leen sant di gis nañ ñaanee yëpp quoi donc comme ni nga ko waxee rek ba benn gars yi kii série bi ba Sadio Mané dugalee bii bi moom laa moom xaw ma sax fu mu nekk wax dëgg yàlla c'est ba deux heures yu matin dama toog di jooy appel yi yëpp mujj ma sax jël ay appel quoi donc kon émission bi def moo jàppoon ma xalaat lu sori lu sori sax lu sori. waaw. paroles yi nga xamante ni moom moo doon faral di ñëwaat yoo xam ne si si sa papa la doon jóge muy muy faral di ñëwaat ba tax nga jooy loolu lan la. waaw paroles jëf ji quoi. parce que da sonoon. sonoon tellement ba tey ku ñemee taxaw naan douzième gaynde la yàlla moom a tax quoi ndax amoon na si Pastef te amoon na si lu mu lu mu gëmoon la quoi. donc léppam léppam version rouge woon lépp. doomi sëriñ sax ko si mujjee judd boo xefee sax boo day takkal vaison rouge ba ni ngay màggee non billaay frigo yeeg tout lépp lépp lépp couleur waaw moom moom des fois sax mën la fii sama kër la hmm. boo bëggee nga def uti mën na ko non fii sama kër sama kër baay la yow dama sa kër baay nga peinture ko vaison rouge donc voilà affaire yu bëri da si doon kii quoi loolu dama ko doon xalaat quoi parce que man sax dama ko doon jàppale ci loolu quoi hmm. waaw di des fois buy waaji dem ma defaral ko affaire yi mu nice quoi quoi waaw ma doon xam nga rek ma ne comme yàlla rek mooy dogal waaw bëggoon nañ mu fekke ko mais comme yàlla nag bu dogalee tamit jaam mënoo xëcc ak moom mm-hmm. waaw donc koy ñaanal rek waaw fa mu nekk tamit mu tàlli quoi voilà fa mu nekk mu taal gis nañ sax ay vidéo yoo xam ne si nii bi ñu bi ñu bi ñu gagné euh, ñëw nañu fii euh, daanaka jubile ñu bëri ñëw lañu fii tàllal drapeau yi loolu aussi nekk euh, loo xam ne si ni benn symbole la ci li nga wax rek dafay dafay dafay dafay symboliser rek bëgg gi nga xamante ni Thiam am e gaynde bëggoon na ko bëggoon na ko gaynde yi mais tamit dafa am leen lu ci li ci topp muy bi mu génnee àdduna dañu gis que ñu que ni dañ ko xaw fàtte ci ci lu bëree bëri rawatina même match Sénégal yi sax ne dañ ko waroon nañuy def ay hommage euh, maanaam euh, moom waru woon a waru woon a réer euh, soit même fédération waroon nañ fa gis nataalam nga xam ne si ni tey fi képp ku ñëw rek da ngay xam ni kii mooy Thiam douzième Gaïndé ndax li mu liggéey ci ci équipe nationale bi jar na ko te tamit mérité na ko. waaw surtout loolu quoi moom moom parce que même ba si douzième Gaïndé yi sax maa leen ko doon wax mais après ba ñu ñëwee parce que ñoom dañoo jóge aéroport je crois jeudi ma def directement fii ñu rafetlu loolu bu baax baax. di si gërëm président Issa Laye affaire yooyu ak ñun àndaloon ñëpp mais ñun man lu ma leen wax ne leen gisuma banderole si stade bi parce que bu ñu xoolee supporter fu ñu leen taxaw waroon na wàcc benn benn banderole boo xam ne hommage Thiam 12e Gaïndé ñoo xam ne moom fii la doon taxaw te yéen yàlla boo leen fa taxawee yàlla ak moom la waaw loolu moom dama koy wax ci kaw yàlla ak moom la parce que ba ñu métti yëpp moom la woon ak ay cinq xaritam yooyu ñoom tonton Moussa tonton Matar ainsi de kon donc bu ñu ba ñoom taxaw fa met ay 200 cent personnes yàlla ak ñoom la. kon donc léegi ñoom ba ñëwee ma leen laajee loolu ñoom ñu ne banderole bi si kër ga la nekkoon suñ jigee stade fa lañ koy gis affaire yooyu ma ne ah kon loolu loolu ngeen sentiroon xel mais. pour waaw monde entier gis ko nga xam ne lii c'est reconnaissant moom ñun moo ñu gënaloon quoi. waaw loolu la quoi mais la reste après bu mu amee ba pare dese bi moom waaw mbokk yi mbokk mbokk moo tax mbokk lu jar a fonk la quoi. waaw mbokk ngay gis ñooy déggante. di woo maire bi mooy loolu xam nga Sénégal moom booy def da ngay def te yàlla tax rek après boo ci xaaree leneen da ngay sonn rek parce que ñoom da ngay def loo xam ne xam ko dem ba jox la ay ordre ordre du mérite kon kooku am nga loo liggéeyal si sa dëkk quoi kon donc loolu moom maanaam waaw dañ ciy sant daal comme taxaw bi daal dafa dafa dafa des ci ci ci ci ginnaawam euh, voilà des na des na ci ci euh, maanaam fédération bi ak ministère des des sports donc waroon nañ ci mën a waroon nañ ci mën a jàpp bu baax a baax surtout njaboot gi. Mm, depuis loolu dëju ba léegi nag après amaatuñ seeni nouvelle quoi. waaw dëju ba léegi dañ ñëwoon nañ fi jaale ci affaire yooyu yëpp bon ñu ñun daal leen moo ñu desee ñoom fi mu nekk nii. suy bu paa bi amoon pour ñu jëloo coupe bi ak waa douzième genn yëpp lu ñu waxoon ñu jéem a jël coupe yóbbu ko ko ba bàmmeelam ñu tegal ko foofu ñaanal ko bu ñu ko defee wàccu nag ak Thiam famille Thiam douzième gaynde maa ngi ci doon waxtaan ak sa rakk sax ci coulisses yi donc muy muy muy benn benn wax boo xam ne si ni wax na ko ko moom mu ne ko même su fekkente ni eh, moom dee na te ku bi ñëwul Sénégal du tàlli mu wax ma ne ma eh, jour bi nga xamante ni Sadio Mané dugal na penalty bi moom dafa xalaat ni paa bi tàlli na. dëgg la waaw loolu moom. bon ñun dañ ciy sant yàlla bu baax a baax parce que loolu la bëggoon da doon toog sax émission bu mujjoon def te ne su ma jëlee coupe bi damay bàyyi des fois sax doon def ñu ne ko papa toogal nga noppalu lii dafa métti voilà loolu quoi mais waaw aal gu muy àndal ak lu muy yëg ci yaramam moom rek moo ko xam moo tax da ngay ko defal ko ay bagage takkal ko mu dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm comme yàlla def na fekkewu ko nag donc ñun loolu rek lañ ko mën a defal quoi waaw ñaanal ko waa comme lu mu bëggoon am na ko quoi mais moom bëggam bëggam la woon ndax ba muy ba muy lancé message bi xëy na am na lu mu yëgoon wala am na lu ko yàlla baaxee loo xam ne mu ngi koy wax te xamu ko quoi donc voilà ça moo tax ñu gisee ko noonu quoi. mais tamit euh, ci ci prime yi nga xamante ni ñu ngi ko doon euh, joxee après euh, sacre bi donc Macky Sall jox na Lions yi ay terrain jox leen cinquante millions ak délégation bi maanaam staff bi ñi nga ñi ñu àndaloon mais tamit ñu bëri na doon xaar décoration à titre posthume bu ki nga xamante ni moom moo di caam douzième gaynde ndax yéen xaaroon ngeen loolu. waaw parce que ñun moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax waaw ñun moom. waaw surtout loolu la ñu yaree quoi demuñu di ñaan wala truc du genre xëy na moom moo mérite loolu. ñu war ko koo defal. dem nañ ba ba jour jour ba ñuy ba ba président di recevoir Lions yi am na sax ñu ñu woo woo sama frère bi ne leen foo nekk yaa ngi pale mu ne ko noonu jotuñu invitation quoi affaire yooyu. maa ngi sant tamit Ablaye Diaw. waaw moom dem na ba tudd ko ci. donc foofu kon alhamdulilah quoi kon am na ko ko représenté foofu. dañ si sant di ko gërëm baax même ba ci ay karambooj même si waaw Kara Mbodj joori moom Kara Mbodj moom c'est le meilleur quoi. moom moom bokk na bokk na ci ñi nga xam ne dañu doon nemmiku paa bi. waaw moom moom ak famille yaayam ñëpp macha allah quoi moom ba tey tey jii may waxee yow tey la anniversaire paa bi. tey anniversaire tey gis nga de tombé waral ay gaaf. donc euh, ndax interview bi ñu ngi doon xalaat naan maa ngi doon xalaat naan suba lañ koy def bu mu yàgg xaw ma sax lan moom wax euh, lan moom mu yëkkati pour ma ñëw ñu ñëw tombé ak lii mu nekk euh, loo xam ne si nii lu garaaw la tamit. mi ngi noonu nag. kon fekke fekkee ma ci fekkee leen ci boole quoi donc heure bi daan fekk ay ay cousin am ak ay ay kii am ñëpp am na jaamam yónnee ko xaalis yu bëri mujj na ay affaire am waaw di tooñ gars ak waa koñ beeg si de poste bi ñëpp quoi donc voilà surtout maa Kara Mbodj moom kooku moom mention spéciale quoi. mais mais mais ginnaaw ci ginnaawam aussi eh, ndax yéen a ngi gardé relation boobu noonu ba léegi ak ñenn yeneen yeneen joueurs yi wala bi mu bi mu décédé ba léegi yeneen joueurs yi moom ñi nga xamante ni surtout euh, la génération ñoom El Hadj Diouf euh, génération 2002 bi est-ce que ñi ngi gardé euh, relation yi ak famille bi ba léegi. non ñun moo wax dëgg yàlla paa bi moom mooy lu ma la wax rek. dafa amoon gëm-gëm goo xam ne bëggul sakku xayab du benn jour. Mm-hmm. amu ko mën sa taxaw ne defal naa lii caam ba ñu ñu xam ko mm, voilà lu mu doon demee alal boppam la ak ay mbokkam dafa amoon ay dafa am connaissance nag te bare si ñu yar ñëpp ba su xoolee macha allah quoi ak waa jolof yi ñoom tamit kenn ay jarbaatam ba si ñëpp jarbaatam yi moom daal ku fëgg nga ubbil ko te loolu deretam la. mais à part ay jour moom ba dëj ba amee ñoom Alassane Dóor je crois ak. Euh, Pape Thiaw ñoom ñëw nañ fi jaale si si jouru dëj bi quoi waaw ñoom def nañ rafet ñëw nañ jaale si mais comme contact nii nii ak ñun non non à part nga xam ne moom saa yoo doon dem Mbour dañuy woo paas yaayam parce que sama yaay affaire yooyu noonu ñuy waxtaan. Kara Mbodj c'est le seul jour boo xam ne moo ko doon defar benn sinap xa suwete ko happy birthday wala affaire yooyu wala di ko woo di ko nemmeeku. Kara Mbodj mais du benn jour génération bi fii nii amul. mais yéen aussi famille bi ay doomam euh, ndax tey porté wu leen loolu tey li nga xamante ni paa bi doon na ko doon na ko def euh, ci Sénégal muy amour boo xam ne si nii bu mu amoon ci réewam doon ko wane ba ñëpp xam ko euh, mu dem tey drapeau bi kan moo ko yore. waaw drapeau bi moom xam naa ni dina naqaree yore torop non. que engagement bi mu ci amoon mu si amoon ñun kenn amu ko si wax dëgg yàlla ñun ban xàmmee ba léegi man 97 ba ma xàmmee. boobu maa ngi koy commencé jàppale di takk ay jël morso takk si moto bi muy dem stade di ñëw depuis géejawaay waaw waaw géejawaay tamit jàpp nañ si bu baax parce que lépp foofu la xewee ku doon dem boo xam ne ma Sénégal bu doon am day gaari ay douze car ay bolok yu bëri xam nga kooku moom kese la woon kon léegi dem na ba loolu mënut am parce que gars yi ñëw nañ kon donc loolu day diis ñun quoi man moom wax dëgg yàlla franchement am naa ñaari frère ak ay sœurs yoo xam ne ñu ngi voyage ñuy sëy nañ laa laaw famille bi gisuma koo xam ne am na pas-pas boobu ba équipe nationale parce que ñun dañoo gis li paa bi doon daj quoi. sonn na si jënn alam bee bëri manqué wuñu dara si àdduna. mais tey tey tey tey dafa mel ni ni ngay waxee nii euh, lim ci sonn maanaam euh, maanaam euh, feeñul ci ci moom feeñul ci njabootam. loolu quoi bi ci daj ak temps bi nga xam ne si nii def na ko ci bàyyi léppam jox ko Sénégal bàyyi lépp jox ko équipe nationale. li ma lay wax nii waaw boo jënd ñeenti saako ceeb. dina jënd ñaari ren si kër gi jël yeneen ñaari waaw bon si discipline yëpp nag looloo moo taxoon ma ma gën ko naw quoi néew si football kese la doon yëngu bi quoi foo tànk lépp mu dagg ay yiteem dem quoi loolu quoi mais ma ko nag waaw man mii lañ koy yaakaare man nee naa leen jot googu moom ak àdduna bi nii nii nii li ma gis nii jamono ji wallaay gisuma ko wax dëgg yàlla mun na nag takk dagg bii sol bi mooy équipe dem seetaani comme ñëpp supporté mais ni si pas mel ña fa nekk sax ñoom actuellement douzième gaynde amuñu engagement amuñu. gisuma ko xanaa da ngay sol nii pour dem voyage wala nga dem ñëw wala équipe nationale bi jaral la ko nii mais engagement bi bi mu si am wallaahi di nga dund ba dee doo gis moom. fat leen mbokk yi ñu ngi ak eh, eh, El Hadji Dame caam donc mu nekk doom ci ki nga xamante ni moom moo di Thiam douzième gaynde caam douzième gaynde nag comme ni ñu ko waxee rek eh, nekkatul koo xam ne si dañ ko président ndax fu nekk teewal na fa Sénégal gis nañ ko matchu Sénégal yi ni muy engagement bu muy am te lool rek daanaka dundam yëpp ci loolu la ko loolu la ko passé ci ci Sénégal mais dañu xëy tey dañu xëy tey am journal yu bind que ni ak prime yi nga xamante ni Macky jox na ko jox na ko gaynde yi famille Thiam dañ ci dañ ci mer est-ce que loolu looy dëggal la. lu fekk ñu le fait leen bàyyi leen euh, laissé leen en rade euh, dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci frustré wu loolu am na. non non non wax dëgg yàlla loolu moom amu ci quoi parce que ni ku nekk ak wërsëgam moom liggéey na fi loo xam ne xëy na si yoon dañ ko war a décorer moo xam ak lu mënti doon moom moo ko liggéey bàyyi ko fi ba àdduna bi yëpp gis ko kon donc ñun amuñu lenn luñ ci mer. ndax ñu ngi ñu ngi ñu ngi dund au jour au jour ñëpp ñu benn problème quoi tey moom moo liggéey loolu du ñun de moom moo ko liggéey te moom fii nekk defaluñ ko ko mu ciy reyante di ko jaral ko moom la jaral te ñun loolu mu ko loolu mu ko jaral ba ba mu koy def moom moo ko xam kon loolu yàlla ko yàlla fay xolom fa mu nekk lépp lu mu def ci lu yiw ci douzième Gaïndé ci Sénégal ci adduna bi boole nit ñi di di xabtal nit ñi pour ñu nekk ci jàmm di di encourager équipe bi pour ñu gagner yéen a googu yàlla na ko yàlla fay fu mu tëdd mais ñun kiiwuñu si loolu quoi parce que bu buñ ko defee war nañ ko def suñ ko deful war nañ ko def xam na li ñu war a def xaaruñu leen si dara waaw ba paa bi di sax xaaru leen si leen waxuma la nag léegi. voilà donc nag buñ ko defee war nañ ko def suñ ko defee nañ ko def parce que wërsëg moo demee noonu te doomu aadama feeg yaa ngi dund sa wërsëg di nga ko jot. di nga ko jot te boo am na ñoo xam ne dañuy dem bàyyi fi. nit di nga di nga di nga di nga jot loo xam ne. ci li nga liggéey loolu la fa demee nag. te boo xoolee am na sama mbokku joueurs yoo xam ne sax dugg nañ ci équipe nationale bi. Mm-hmm. ba gars yi di xare badar ba pour pour jël ko bi pour qualifier bokkuñ ci donc ñëw nañ kon loolu seen wërsëg la. kon yàlla leen lew ñoom ñëpp. ñoom nag tamit la war a def xam nañ ko. suñ ko defee xayruñ suñ ko defee xayruñ ñun tamit dinañ topp suñ ndigalu papa bëgg équipe nationale. mu dem ñu si ñu si dem seetaan ko suñ mënee dem dem suñu mënee toog suñ toog si télé bi seetaan ko di ñaanal ñëpp. la waaye tamit sànq da wax benn wax eh, ma bëggoon nga ñëwaat ci rek eh, pour ñu ñu ñu ñu koy tëjee mooy eh, jël coupe bi yóbbu ko ci ci ci bàmmeelu ndem si yàlla Thiam douzième gaynde ngir mu mu tàlli comme ni nga ko waxee loolu aussi lu ngeen di sàkku la et lu ngeen lu ngeen lu lu nekk seen xol. waaw loolu lu nekk suñu xol la te moom daf ko waxoon fa taxaw waxoon ko ba pare incha allah tamit. comme moom mooy président douzième gaynde ñoom tamit taxaw wax ne dinañ ko dinañ ko def ah, fédération bi donc ñun tamit dañ koy jiital moom mooy kilifa douzième gaynde comme moom moom la ñuy bàyyi mu dox loolu wax ko càmbar ko su amee xayrun su amut ñu toog fu ñu toog di ko ñaanal waaw man loolu loolu laa gis quoi parce que tamit am na loo xam ne mun mënoo ko xëccoo yëpp parce que tamit dégg naa ñu ne coupe bi dafa région yi tamit xam na loolu tamit loo gis rek da waxtaan la bu dee dem na ba ba Louga région de Louga Louga ak Linguère sorewul ñu def crochet foofu waaw mi ngi Linguère foofu mooy suñu ville natale quoi mu ne def foofu décro kii crochet kii ko fa foofu ñaanal ko fa après bu ñuy wàññee ko dem Saint-Louis demaat Saint-Louis wala ñu demaat Fouta waaw loolu laa gën a gis quoi ñu xool nu mu gën a yombee rek ci ñëpp ñu defee ko noonu quoi tey bu amoon message booy booy lancé le président Macky Sall nga xam ne si nii euh, moom mooy le président de tous les Sénégalais euh, tey lan lay nekk. waaw dam naa di ko wax ni ne ko Thiam ku sonnoon la ci équipe nationale discipline yëpp nag kon jox na ko ordre du mérite kon kooku desetul la dara mais nag ndimbal na see fekk la xëy boroom moom daana fekk di def lépp mais comme nag premier président yaa fi nekk te ñun tamit. say say doom lañ say say kii lañ voilà donc ñu ngi lay ñaan loolu soo ñu ko mënee defaral nga defaral ñu ko jàppale ñu jëlal ñu coupe bi yóbbu ñu ko ba Linguère xam nga fu mu nekk mu mën a taali ko après ñun loolu rek la lay ñaan waaw ah, ñaanu ñu leneen lu dul loolu quoi voilà. ma bàyyi la nga nga nga tàggatoo. waaw di sant Sénégal Ndiaye ñëpp. waaw di gërëm waa diaspora bi sama suñu mbokku jolof jolof yeeg président ministre Aliou Ngouye ministre Habib Sy waa ah, Jolof yëpp ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di gërëm waa Géejawaay fan dëkkoon ah, di nuyu tamit waa te Tëngéej ñëpp si de poste amuñ seen fay taxawaay bi rafet na ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp waaw ah, macha allah quoi sant mbokk yeeg ñëpp bàyyiwuñ kenn di leen wax ni càmm moom ma nga fële mais xam naa ni des fois sax am ñu may tooñ sax ne ma saa est-ce que doo niwul mooy woo got pour mu def affaire yi quoi <laughs> mais mu lépp na amoon na sañ-sañ bi quoi donc maa leen remercier yéen ni ñëw seen seen seen kii bi émission bi ñëw def fii ñaanal yéen yàlla yokk seen liggéey grade yi yokk ba ngeen yor seen i bopp quoi yàlla mën na yàlla na yàlla def jaa jëf jaajëf ngi noonu El Hadji Dame la ñu àndaloon ci waxtaan bu am solo boobu fii ci Sunugal 24 waxtaan waxtaan bu am solo la nag ndax euh, waxee na fi euh, jaloore ji nga xam si ni papaam Thiam 12e gaynde def na ko ci Sénégal def na ko ci équipe nationale waaye tamit mbébét bi mu amoon fekkee li nga xamante ni moom moo di ndam li Sénégal am tey mais yàlla def li gën di ko ñaanal fa mu tëdd yàlla seddal ay yaxam waaye tamit muy euh, muy muy benn benn vœu boo xam ne si dafa nekk dafa nekk ci ñoom donc muy ñu yóbbul coupe bi Thiam fële ni foofu la foofu la tëdd muy Linguère guerre ngir mu mën a tàlli comme ni mu ko waxee donc je pense que euh, autorités yi dégg nañ ko je pense que Matar Ba mi nga xamante ni moom mooy ministre des sports euh, dégg na ko te xam naa dañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax di leen jaajëfal euh, ci topp bi suñu programme Sunugal 24 di leen jox dig daje ba beneen yoon